lecture bi ñu ci am nekkul lu dul lecture dañu gën a rendre suñu président. ndax euh, xam na cër lu ndaw yi yelloo mu jox leen ko loolu moo tax man je suis fier de notre président de la république discours bi nag bëri na point yu ñu ci abordé mais man ci ëpp solo lu ñu ci retenir mooy il a tout d'abord parlé à la c' est normal ndax fête 4 avril la fête jeunesse bi la waaye tamit ay wane ne président gëm-gëm-gëm jeune yi parce que soo ko seetloo tey mooy nee naa au minimum troisième discours boo xam ne ne solennel boo xam ne mu ci wax ak bi lu ko jiitu lu jiitu tey le 1er décembre 2018 bu ñu koy investir mu nekk candidat benn bokk yaakaar dafa ne cinq initiative lu fas yi yéene dox suñ ko falee initiative numéro un bi ndaw yi la woon yàlla may ko ndam ci élection yi muy waat dem ci kanam askan wi ci kanam fee ci jam ñaajo bu ñëwee tamit mu wax réitéré ko ne ndaw yi fas yéene naa leen def priorité ci sama mandat bii nii tey tamit ci veille suñu fet indépendance bi nga xam ne ndaw yi encore une fois ñoo ko moom gannaaw bu nekk fête sénégalais yëpp ñu wa waxtaan ak ndaw yi ñaax leen lu am solo mooy tamit ñu ñaax leen ci déggal seen waajur yi donc dialogue euh, entre les générations wax na wax na ci donc fàttali suñu devoir bu ñu am suñu dëkk mais tamit nañuy déglu suñu waajur yi loolu tamit mu nekk amul lu am solo bu mu point boobu demee bu mu ko ci retenir teg na ci beneen point bu mu amal solo mooy affaire bu ne euh, nañu ne ci discours am bi que ne fête bi am na ay invité d'autres chefs d'état yi nga xam ne ne fii lañ dëkk ci Afrique ñuy hmm. rawatina président euh, bu Gambie ak président bu Madagascar hmm. loolu di joxe fête bi caractère panafricaniste hmm. loolu gis naa ko ci mais tamit woote na jàmm ca Casamance ak fépp ci Sénégal tamit euh, te comme ni nga xamee rek jàmm lu mu doon ci réew mooy lu wér-gu-yaram nekk ci doomu aadama nit ki baa ngaa ne naam nekk fi donc du réew su amul jàmm du mën a développé donc loolu tamit nekk na lu ma marqué ci discours président dinaa woote jàmm mais tamit wax na lu am solo mooy indépendance bi actuellement ni ko mën a wéyalee mooy développement nee na interdépendance dafa war a traduire comme par une indépendance économique ak développement loolu tamit aspect bu am solo la mais mu terminer ko ci les cinq tomes yi nga xam ne moom la ñuy njëkk génne ci ouvrage euh, cinq ci ci histoire générale du Sénégal bi nga xam ne ni koy bindaat mm-hmm. ndax moom bu mu faloo rek dafa bëggoon ndaw sénégalais gën a xam lan mooy Sénégal gën Sénégal xam sénégalais yi gën a xam lan mooy histoire Sénégal jël ay expert ne nañ ko la fidèlement récit histoire Sénégal pour ñu gën a xam suñu bopp. léegi nag projet boobu noonu les cinq premiers les cinq premiers tomes dina génn nee na c'est un projet de vingt cinq tomes cinq premiers dina génn tout prochainement donc mu nekk loolu pour man moo nekkoon cadeau bi cadeau bu ñuy defar parce que gëm naa ne. yàgg na fi wax ay projet mais bii benn ëpp ko si solo ndax projet boo xam ne moom lay xamal sa bopp loolu moom dara gën a ko féete kaw waaw